mën na am nga xëy na suñu diggante banque yi ñu dund xaalis bi nga xamante ni mbooloo mi ñoo mbooloo ñoo ko moom léegi bu fekkente ne bu amee ñaari ñaari xiyaaraat wala ñaari bu tegalee ñaar nga xamante ni benn bi mooy nga denc nga denc ko fa compte bi for ca dara maanaam nga mu taxaw fi mu taxaw daal ñu see yëngatu bi ci for dara waaw ba dara génn ci ndax def ji est que sañee na ko ñu ko defee ba noppi ñu jotee ci kii ba ñu jot ca ca kii wala waaw moo xam xëy na ni mu ko waxee mën naa bañ a waaye est que sañ nañ daal mbool maanaam sañ nañu jël xaalis dénkaane ko ci banque bi ñu tëj ko fa muy yóbbu en tant que xaalisum mbooloo ak kenn ñaareelu laaj bi mooy dañuy seetlu ne ñun ñi nekk fii for xëy na for da nga gis ne askan ñi nekk Sénégal ñoo koy gën a ñi nekk Sénégal ñooy gën a yeyoo que mën nañ leen ko yónnee askan wala déet daal ñaar yooyu la doon laaj bu ndax na ko ci dara foofu de moom tàmbali bi mooy euh, atte yaaju ci xaalis moom duñ ci xajjal xaalisu mbooloo xaalisu kenn mm-hmm. kenn moom ko mbooloo moom ko rek ñoo yemi atte mm-hmm. li nga xam ne nag xam nga ci lislaam it mm-hmm. euh, ni ko ni ko ni ko yoon yëpp yi defe sax mooy mbir dañ koy dañ koy bu ko qualifié buñ ko qualifié rek ci lañ koy mën a joxe atte duñ euh, tënk ko ci ci ci koy tuddee mm-hmm. waaye ci lim doon dëgg-dëgg la ñuy tënk mm-hmm. mooy banque yi dénkaane lañuy ñuy wax mm-hmm. loolu la wax waaye dëgg-dëgg du dénkaane waaye lebal la lebal la ndax euh, lebal daa lu koy luy wane ne mbir bu demee nii rek lebal la lebal la bu demee nii dénkaan la ndax ndénkaan moom ki ñu dénk sañu caa sañu ko jëfandikoo lañ ko dénk sañu caa def leen lu dul denc ko rek mhm. bañ laajaat ko ba mu delloo ko mhm. nit nag loo ko jox mhm. mu sañ koo jëfandikoo moom te bu ëllëgee mu delloo la ko loolu bor la kon du tuddoon moom bor ci lislaam dañ naan bépp bor boo xam ne koy leb leen te dañoo dëppoo ci kii leb buy fay doon ci dara lu mu tuur dañ naan riba la te bu dee riba du baax mm-hmm. moo xam diggante nit ak nit la ñaari nit mm-hmm. wala nit ak ab kuréel wala yu mel noonu mm-hmm. kon mooy li ñuy tuddee intérêt bancaire yi moom euh, kenn laa mas a gis ci borom xam-xam yi mas a xam yëpp kenn laa ci mas a gis ku wane ne jàpp na ne war na war naa mën a dagan daal waaye ngir si moom dañ ne riba rek la riba bi alquran tere ko taral ko lool itam moom rek la kon moo xam alalu kenn la xaalisu kenn nit la rek moo xam xaalisu mbooloo la waree su ko def ci banque banque bu def teg dara ci anam yi banque yi di liggéeyee banque yi na banque de dépôt wala banque commerciale yi ci anam googu moom du doon dagane te banque islamique ñoom daañ koy def mooy investissement lay doon moom dañ lay tegal ay domaine d' investissement ne la sa xaalis mu ne koy investir ci domaine sangam wala domaine sangam nga tànn yow domaine ba nga bëgg bu defee ñoom buñ liggéeyee ba at mi jeex te domaine booba dañ ciy liggéey buñ ci liggéeyee ba at mi jeex ñu seet ña ca dugaloon seen xaalis ñëpp bénéfice ba ñu seddoo ko ku ne am ci lam a am lu tolloog lam lam ci dugaloon mm-hmm. lu mel noonu mm-hmm. moom du du bor ndax investissement la mm-hmm. ndax bu ca perte amoon tam da ngay pertaale waaw moo tax daal banque yi nga xam ne nag ñoom dañ fay joxe sa xaalis lu man di xew dañ la koy joxaat ba noppi nag bu na ca da bu na ca da dara rek loolu moom bor bu ànd ak lañ koy jàppe tuddee ci wàllu wàllu wàllu wàllu boobu bu dee bi ci des nag aju ci asaka asaka li ci cosaan mooy nit ki asaka war fam ko ware foofu la koy joxe ne ko fa yeyoo boobaa nag day day laaj mu gëstu ndox àddina si nag fooguma ne am na ci béréb béréb boo xam ne dana ñàkk ñu yeyoo asaka waaw jullit jullit lay doon jullit da koy yaayoo ko dul jullit des ko jox asaka des na ko sarax waaye des ko jox asaka kon jullit lay doon jullit bu bu bu loxoom jotul ginnaawam loolu nag foog naa ne am na fépp moom foog naa ne àdduna sépp la am day laaj nag ci ci asaka war nag bu fekkee xamalu ko boppam itam mu gëstu waaw du ñàkk mu gis ko foog naa du mu gis fa mu nekk ay jullit yoo xam ne yeyoo nañ jël asaka mu jox leen donte dana leen ci mën a jox man mhm. cee jël dara nag yóbbu feneen mhm. waaye du jaadu moom mhm. mu jéggi ñun ñim nekkal te ko mu jéggi leen di ko jox ñeneen man na leen cee jox nag jox ci ñeneen waaye mu bu mu leen bu ko xañ lépp daal di ko joxe ñeneen dafa laaj nag bu ko xamul bopp mi tam nag mu gëstu laajte foog naa ne ko laajte fu mën dina ci àddina si moom foog naa ne dana am ay bilit bi fa nekk ñoo xam ne danañ yoree jël asaka bu demoo ba amul nag dëgg-dëgg. gëstu gëstu gëstu xamu ko. waaw dina ko sañ a yóbbu feneen. jox ne mu nekk feneen. ma am lu ma laajaat ci laaju sëñ bi rek. mooy jamono ji nga xam ne daanaka banques yi neexuñoo mucc. te ay intérêt da ci am. Mhm. lan moo war doon. taxawaay bi daal tax mën nga faa denc xaalis ne du ma jël ne du ma jël intérêt yi wala nan lan mooy taxawaay bi daal ngir moytu moytu lu xaram loolu nga xam ne moom la banque yi di di joxe. xam naa li njëkk moom mooy fooguma ne itam banque ko fu mën di def sa xaalis rek fooguma ne daañu la ci tegal dara. te daa mel ne xeeti kii wuute la. xeeti compte yu wuute la am na compte boo xam ne ku ko def moom moom la ñuy tegal dara te am na compte boo xam ne ku ko ubbi moom duñ ko tegal dara. moom nag moo cay fay. loolu man damay faral di wax ne liggéeyu saytaane la hmm. ndax nit ki bu dëgërul rek hmm. bu ne ko yow fii moom boo fi dugalee sa xaalis doo fay hmm. te ñoom ñoo la ci tegal dara boo ko deful nag kon koy dugal yaa cay fay yow te duñ ci tegal dara loolu ku ku jaral moo naan man jaral na ma ma ko fii di ci fay moo ma gënal ma dugal ko fu ma dul fay te ñu ma cee defal loo xam ne araam la kon li jiitu ci jullit bi mooy mu xam ne du du du fu mën di dugal du fu mën di jëflante ak banque rek mu doon riba daal kon jëflante yi nga xam du riba moom mu def ko lu mel ni compte courant yi compte chèque yi foog naa amut luñ cee tegal nit moo cay fay nag sàmm diinam war na koo jaral lam cay fay euh, la ñuy fay ci compte boo xam dañ ko cee dencal xaalis loolu ko war a kon loolu moo ci jiitu compte waaye nit ki euh, seet ba mën a wut compte boo xam ne duñ ko ca tegal dara bu bu bu demoon nag ba boobu ma ne mën naa waaye bu amoon bu ba nit ki mënut am benn compte bu dul buñ koy tegal dara te mënut a ñàkk ñàkk def xaalisam ci banque booba mën na ko caa def kon waaw lañ ko cee tegal mu bañ koo jëfandikoo mu mu mu sarxe ko da koy sarax da koy sarxe mooy da koy jox ñu yeyoo sarax bu fekkoon ne dem na ba mënu koo ñàkk a def foog naa nag mën nañ koo ñàkk a def waaye kon bu mënu koo ñàkk a def moom bu ko defee it kon du jëfandikoo la koy jóge ndax nit ki loo xam ne da ko fàggoo ci anam gu lewut dañ naan daganut mu jëfandikoo ko moom daganut ci moom Euh, day xaw a nuróog rek kon mooy daganut xam na ne kon moomu ko daal ndax nit nit lu daganut itam moomu ko mhm. suñu ko moom itam mhm. kon day mel lu dugg ci loxoom la te xam na ne moomu ko mhm. boobaa lañ na muy def mooy delloo ko yàlla mi moom alal jëpp delloo ko ko nag mooy sarxeel sarxeel ko jox ko ñi nga xam ne yow nañ rek extra gën a yaatu nag mooy jullit ñi seen bopp ñu warut a sàggan ba lu mel noonu di leen dal xam naa loolu moo tax ba jamono sax jullit ñu xalaat wut ay banque yoo xam ne day day doxee ne lislaam bëgg ku nekk yenn béréb yi nga xam ne xëy na loolu yomb fa it jullit ñi war na ñoom ñoom taxaw taxawal seen bopp daal ba mën a mucc ci ci tëralin yi nga xam ne tubaab yee ko fi indi te ñoom diine tënku leen ku diine tënkut nag boo sax rek moom àddina yow war ngaa mën def say pexe yow bay am nooy mën a doxeel noo noo xam dana dana dëppoog diine ji la tënk yow loolu loolu tam lu jaadu la teñ bañ a jàpp rek ne lii not na lii not na kenn mënu ci dara rek xam nga luñ ci man buñ koo buñ ko buñ ko jubloo dëgg-dëgg te farlu ci war na ñoo mën a fexe bay am jullit yi taxawal seen bopp ay banque yoo xam ne euh, mën na jëflante jëflante yu dëppoo ak yi lislaam bëgg ni ko banque islamique yi amee yeneen banque mën naa am nit ñi defar seen bopp rek lu mel ne murid yi war nañ mën a ay banque banque yu ñu defar taxawal yoo xam ne dañ ci dimbalante di jàppalante ci mhm. anam koo xam ne islam bëgg na ko mhm. yu mel noonu lu jar di kii la itam mhm. lu jar di xalaat lu jar di jéem la itam nit ki nag nga xam ne moom àggaguñ foofa bu ñàkkee pexe bu ñàkkee pexe ñàkk pexe nag nit ñi dañ ci gaaw a àgg te agun àggun ci waaw dañ ci bëgg a àggale seen bopp te àggun ci daal waaye ku dem ba ñàkk pexe dëgg-dëgg moom danañ ko may loo xam ne bu amoon pexe duñ ko ko may kon mooy ku demoon ba munta ñàkk ubbi compte bopp dañ ko cee tegal dara dañ ko jàppe ko ñàkk pexe mu sañ koo def waaye nag la cay jógee du ko sañ jëfandikoo da koy jox ñu yeyoo sarax jërëjëf wala xam naa li may laaj de doon laaj bu yaatu boo laaj ci biir tënku ci masab tënku ci masab muy dégg ñuy wax naan borom xam-xam la ñuy may léeg-léeg muy jaabante ci masab daal léeg mu laal fii léeg-léeg mu laal bi léeg ñu mel ne borom xam-xam yi lañ koy may waaye foofu kon xam naa ne dinaa laajaale kan tuddee borom xam-xam ak it ndax léeg-léeg may nañ la daal nga gis leneen ci benn donte te ci mazhab waaye nga gis ay benn ci yeneen i yoo xam ne loolu xëy na moo gën a doy nga jàpp ci loolu euh, foofu it may potoxlu laajaale euh, siiw na ci murid gi ñu wax sëñ bi santoon na tënku ci ci mazhabu Maalik yooyu daal ni ko mën a déggee ak euh, nan lañ mën a jëflanteeg loolu daal. bu dee lu mujj li moom buñ ci tàmbalee mooy lu wér la moom euh, sëñ bi dénkaane na denkaane na tënku ci ngirum Malik waaye balaa lu jiitu loolu lépp dañuy xam ngir dañu xam ne ngir jumtukaay la ngir yëpp nag ay jumtukaay lañ yuy dimbale nit ñi ngir ñu mën a jëfe alxuraan ak sunna ndax jullit bi loolu rek la war a jëfe alxuraan ak sunna rek mooy li mu war a jëfe ngir yi nag ay jumtukaay lañ koy jàppandal loolu kon mooy la ko tax a jóg ak sunna waaye ngir yi nag ci lay jaar ngir mën a ci alxuraan ak sunna buñ ko xamee noonu rek dañuy xam ne kon jumtukaay ku ne xam na ne du du du du du ne nit nit mënu koo mënu mënu koo mënta wuuteeg moom daal jumtukaay dañ koy jëfandikoo saa buñ gisee ne leneen moo ko gën mën a liñ bëgg léegi leneen la ñuy jël ay jumtukaay yu wuute la yaa ngi koy jëfandikoo waaye dem nga bàgg foo xam ne xam nga ne am na jumtukaay bu keneen yor moo gën a mën a sottal li nga bëgg kon booba nga war a jëfandikoo kon mooy ngir danañ ci tënku buñ tolloo ci war ci tënku waaye ku dem ba ngir waru koo tënk itam nag waru koo tënk ci lépp euh, sëñ bi bu ko dénkaanee dénkaan li dañ koy firee ne ñi nga xam ne ñoom dañoo war a tënku ci ngir dañu lay jubloo wax ku war a tënku ci ngir moom nee na ko da Maalik waaye koo xam ne nag xam-xamam àgg na fenn fi xam-xam it day wuute mm-hmm. li ñu li ñuy wax borom xam-xam dëgg-dëgg moom ci lislaam mooy kooka moom sañu tënku ci ngir mm-hmm. sañu ko sañu ko ndax mooy ki nga xam ne mën naa demal boppam ci alquran man a demal boppam ci sunna man caa génnee àtte kooku mu sañ sañu tënku ci mel ni ngeen ndax bu ko tënkoo day mel dafa topp keneen ku dul alxuraan ak sunna ndax mën na caa demal boppam kon sañu ko jaar feneen am na koo xam ne nag àggut foofa waaye àgg na ci mën a xàmmee njëriñ yi yi ñuy wax fuñ ko teg fuñ ko teg gis laa yi ñuy sukkandiku ngir waxtaan kooku àgg na ci mën a xàmmee loola kooka mën na tënku ci ngir ci njëlbeen waaye saa bu demee nag ba gis ngir ñu tënku mu wax loo xam ne xam ne cëslaay yi am na cëslaay leneen lu gën a dëgër waa ñu të tënku ci ngir moom sañu du ko moom itam ndax bu ñu tënkoo rek day mel ne moom it ngir mee ko tax a jóg te ngir taxatu war a tax a jóg kenn alquran war a tax a jóg nit ñi ak sunna ki nga xam ne kon àgg na ci mën a xam ngir yi la ñuy wax fañ ko teg mën a màndaxe itam ba xam cëslaay lu gën a dëgg rek lu gën a lu gën a woyof ku àgg foofu mën naa tënku ci ngir waaye saa bu àggee nag ci gis loo xam ne moo gën a dëgër li wax lu gën a dëgër la war a topp borom ngir yëpp loolu leen digle ku ci nekk dafa wax ne ku ne wax na ko ci borom ngir yi ñeenti ngir yi nga xam ne ñooy ngir yi ahlu sunna yi ku ne wax na ne bu ngeen gisee ma wax lu wutee alxuraan sunna bàyyi leen sama wax ak alxuraan sunna ndax xam nañ ne seeni wax jumtukaay la rek bu yóbbu nit ci alxuraan sunna waaye waru ci ci alxuraan sunna war a dënku ci àggut foofu nag nga xam ne moom àggut ci mën a xàmmee xam-xamam gut ci mën a xam ngir gi lañ wax fuñ ko teg sàkkantumaa di mën a xam nag di mën a màndaka bee xam lu gën a dëgër lu gën a dëgër kooku la ñuy moom mu tënku ci rek bañ sax di gëstu leneen ndax bu ko gëstoo daf koy lëjël te du ci xam dara da ngir ma wax rek mën na caa tënku bu ko defee yoonam bañ a nekk ci yeneen ngir yi lañuy wax am na koo xam ne sax mën nañ koo may sax waxuma ngir waaye kenn nit rek sax mu tënku ci moom nit sax bu fekkee xam-xam àggul fenn fi mën naa seet kenn ku ko doy rek koo xam ne xam-xamam doy na ko ak maandoom doy na ko lu mu ko wax rek ci diine mu tënku ci yoonam bañ a nekk ci la ñeneen di wax ndax bu yoonam nekkee ci leneen rek day dajal boppam te document di kii yoonam di nekk ci li ñeneen di wax mooy ki nga xam ne àgg na ci xam la ñuy wax fañ ko teg àgg na ci itam ci mën a mën a gam-gam le te mën a xam ku gën a dëgër ku gën a dëgër la fa teg la mu wax kon sëñ bi buy tënkulu ci ngir mooy benn kii nga xam ne moom xam-xamam àggut ci mën a xam ñii ci li ñuy wax ko def wala ki nga xam ak xam-xam na foofu mën naa tënku ci ngir waaye nag doon tënku koo xam ne bu ma sëkk lay doon saa bu àggee ci foo xam ne gis na lu gën a dëgër ci ngërëm wax day jàpp lu gën dëgër te du tee te du tee mu ne ci ngërëm ba tey loolu gis nga borom yu mag la ku Abu Hanifa nga xam ne moo man ci borom yi yi borom maanaam ay taalibe ñi gën a mag li ñu wuteeg moom kenn xamul lu mu toll ñu gën a taalibe ñi gën a mag dañoo wuteeg moom ci lu bari imam Maalik taalibe ñi gën a mag dañoo wuteeg moom ci lu bari te teewul ñu jàppe seen bopp ñu bokk ci ngërëm kon àgg ci foo xam ne gis nga lu gën a dëgër ngërëm yi nga nekk nga jëfandikoo loola teewul te nekk ci ngërëm yi ba nekk koo xam ne xam-xam may na ko loola moom loola la war a def du rek lu mu sañ waaye lu ko waral la ndax bu ko defut day mel na ngir mi la topp ngir mi la tax jóg te ngir nekk jumtukaay la aw yoon la ngir sax ci wolof yoon lañ firi yoon lay firi bu dee baat arab yoon la ciy firi rek mazhab mazhab mooy mooy jaaruwaay fii jaar ngir dem kon aw yoon la waaye taxut taxut a jóg bi nga xam ne nag euh, mën naa xamal boppam yenn yi bu àggee ci xam ne lii kat yoon la waaye fii moom jëmut jëmut ci jëmuwaay ba hmm. tey seet bu jëm jëmuwaay ba nag mu jëm hmm. Hmm. jërëjëf jërëjëf mu ci foofu man laa am lu ma laajaat rek ci tax ci laaj bi la ba léegi mooy su boobaa kon borom xam-xam bi nga xam ne moom kon moom dañ koy tere mu tënku ndax xam-xam yegg na fenn fi waaye boobaa ndax dina bu fekkee am na mbooloo ci ginnaaw ndax dina leen sañ a woo ci ci loolu nga xam ne moom daa settee la ci mesure ci mesure xëy na sax tënku na waaye waaye loo xam ne da ngaa jëlee ci beneen mesure ndax sañ na cee woo mbooloo wala loolu dañ ko fay tere si booba bu dee bu dee mbooloo moom ñu def moom ñu def moom ñu def wala ñu nangul ko daal nit comme ne ni ma waxoon léegi ne nit kii xam-xam àggul fenn moom mën naa xool kenn ku ko doy rek bu dee moom am na ñoo xam ne moo leen doy ci seen diine kon lam jàpp ne mooy la wér loolu la leen di woo bu fekkee ne day wax nit ñi rek di wax ak ñëpp ñëpp di wax ak ñoom xëy na am na ci ñoo xam ne ñoom teg nañ ko foofu am na ci ñoo xam dañ ko jàpp borom xam-xam rek boo xam ne day wax bu waneen waxee lu wuteeg lañ ci mën nañ ko bañ a topp kooku boobaa li gën mooy nit ñi fañ tënku mu cay wax ak ñoom te lam jàppal boppam nag bu wuteeg loolu itam mën na koo jëfe waaye buy wax ak nit ñi nga xam ne xam na ne tënku nañ feneen muy wax ak ñoom te lañ tënku jërëjëf ba tey xam naa dina xaw a wuute waaye ba léegi day dugg ci laaj bi ba léegi. xam nga dañuy nettali def naa la xadis xadis bu xadisu Muaz ibnu Jabal ak Sàmm ba. nga xam ne def naa ngirum Malik dañuy dañuy tere julli ci mbooloo ba pare dem jiite ay nit. waaye xadis boobu day mel ne xadis bu wér la. maanaam Muaz daan na jullee jullee jullee Madina. dafa mel ne dañu daa dëkkoon ci kurkuraanu Madina. bu demee fu mu dëkk jiite ñum dëkk hmm. ba ba lii xewoon ak sàmm ba di yonent bi hmm. léegi lu mel noonu moom ni koy déggee nga tënku ci mazhab Malik ba noppi nga gis bu euh, day julli ci ba dem jiite ay nit hmm. yu mel noonu daal na nga ci doxalee rek waaw euh, xam nga nag euh, xadis daa bëri mbir ñu ko ku mel ne Malick rawatina Malick daa am daa am ci ay cëslaayam loo xam dafa dëgër ci moom li muy tuddee amadu ahlil madina hmm. dafa dëgër ci moom li ñuy tuddee xadisul ahad xadisul ahad mooy lu nekkul mutawaatir rek xadis hmm. bu nekkul mutawaatir rek bu safaanoo ak amadu ahlil madina hmm. Malick day jiital amadu ahlil madina ñu bari ànduñ ceeg moom waaye am kii ngi ci xalaat am na xalaat daal tege na tege na tege na fenn daal madina fa la yonte bi nekkoon ba génn àddina borom xam-xam madina kon buñ dëppoo ci dara li xel di nangu mooy dañ ko jële ci ñeneen ñeneen jiitoon te nekk fa rek ba dama àgg ci yonte bi ko defee bu dee xadis boo xam ne dooleem àggut ci nekk mutawaatir moom day jiital amoon ahli madina kon ku koo xam ne xam na teslaayu Maalik yooyu te ànd caag moom day ànd ak moom ca loolu itam danaan dëgg la xadis la waaye xadisu axaad la te amalu ahmad dina wóotu nag moom kon amalu ahmad lay jiital moom lay jëfee di jëfee xadisu axaad ku dëppoot ak ma ci ay cëslaayam moom war na ne amalu dina daal du cëslaay xadis axaad ak xadis mutawaatir yëpp lu ci xas lu ci xas jàppe lu wér rek bu dee axaad kon dañ cee dellu bu wuuteeg amalu ahmad dina itam kooku moom day day topp xadis axaad yi hmm. kon ci loolu lay ak jërëjëf leer na. bi mu ngi maanaam jamono ñu toll nii nisaabu asaka boo xam ne day leen lii boo ko amee ci xaalis exemple ci wàllu CFA ñu ne cinq cent mille wala un million wala deux millions instant nii maanaam nisaab bi fu mu toll fu mu toll fi mu toll nii ku man sëñ Mbacke Abdou Rahmane dana koy faral di gëstu moom ba mujjee léegi moom mujj ko gëstu yàggut lool kon naa xamu fi ñu dellu moom mooy bi asakay wàcc or bi or bi ak xaalis bi ñuy tëgg moom lañ daan jëfandikoo ci jaay ak jënd moo ne kon moo ne moo ne or lañ ko daan liggéey ak xaalis moo tax asaka itam ci lañ ko tënk léegi nag fi ko tënkoon ci or moom mooy lu tolloo kon dañ naan jamono jii ku ci am lu mën a jën quatre-vingt-cinq grammes nga mm. kon asaka war na ko euh, sëñ Màkki mi mu ci mujjee gëstu foog naa gramme bi vingt mille francs la doon foog naa ay deux millions quelque ah, waaw deux millions manqué waaw moom noonu lañ koy seete rek waaw quatre-vingt-cinq grammes daal lu ko mën a jënd rek boo benn gramme or lu muy jar boo xamee rek xam nga doon sa diraam nawet lay def li nga am bu ko matee te am at ci yow at moo xam ne bii at mi del siwaat li nga yor yeesu ko bu baax comme ni génne ci kenn ko si fekkee sëñ bi bu bëggoon a wax ne mm-hmm. xëy na nattukaay yi kii woon na soppi ko mën naa am soppi ko na soppi ko woon na xëy na pertama bila bapa orang kini ibai malam ibai iska hmm. memang terbaik dari dari pendapat kami itu konsentrasi orang yang boleh ada satu pun itu boleh boleh boleh boleh dia pakai itu dan baik iska kom baik dia boleh jujur boleh membaik hari ini boleh menjadi dia menang pertama hmm. tak daya kan boleh bu dee bu dee mbay it bu dee nisaab bi moom moom it liñ def ci xaalis rek lañ ci def ndax jamono yooyu daawuñ pese daawuñ pese waaye dañ daan natt kon mesure de volume moo amoon waaye mesure de poids amutoon booba kon volume lañ daan joxe volume bi ñu daan joxe nag buñ ko buñ ko convertir ci pois day xaw a jege ay sept cent cinquante grammes sept cent cinquante kilos 750 kilo, lay xaw a kon fi mu ne dañuy ne ku 750 kilos kan? daal ci ci ci la asaka war na ko yan mbay la asakay warit bu dee ci ngëriñ dañ ko dañ ko ñaari ñaari ñaari melo lañ joxe bu nekkee ci mbay rek asaka war muy loo xam mën naa nekk dund te na ko denc lu yàgg te du yàqu du gaaw a yàqu daal ma ne sa ko denc te gaaw a yàqu te mën naa nekk njiital lu boole ñaari melo yooyu rek la asaka di war da asakay mbay lu boole wut ñaari melo yooyu nag asakay mbay du ko war moo tax ba ay fruit yi ak légumes yooyu yëpp asaka du ci war ci ci ci njëriñ donte am na yeneen ngir rawatina ci chiyan yi ñoom dañoo gën a yaatal ci euh, asaka ñoom duñ daanaka duñ ci kon daanaka nisaab sax dañ ko ko bàyyi xel nit ki lu mu am rek dafay génne asaka lu mu tuuti tuuti waaye bu dee ci ngir yi ahlu sunna moom li ci gën a moom mooy ñaari melo yooyu mbay mu am ci la asakay mbay di war ki nga xam ne nag day bay leneen loo xam ne ñaari melo yooyu nekku ci asakay mbay du war ki moom waaye nag asakay xaalis mën naa war ci moom asakay njaay asakam njaay lu mel na ñuy jaay fruit ñii ñuy bay fruit ak légume xam nga fleur légume kenn bàyyi ko ngeen di ko dundee dañ koy bàyyi ngeen di ko jaay kon ay jaaykat lañ ay ñoo ki yor bi di jaay ñooyam jaaykat nag kon asaka mooy asakay xaalis rek mooy moom it at lay nekk bu matee at mu xool li mu yor ci xaalis ak yor ci marchandise bu ko xaymaa boole lépp bu matee ni saab mu génne ci asaka mu ni saab mu xam ne asaka bokk te kii bay moom saab mbayam ñoree rek moom bu matee ni saab moom ñu bàyyi bu ñuy génne asaka ñu bàyyi leneen lu ñuy jaay nag nga xam ne jaay rek moo tax moom mu di ko bàyyi te ñaari melo yi ñu waxoon nekku ci kooku moom dañ ko jàppe ab jaaykat ma laajaat maanaam daal dëkk mos a nekk boo xam ne ñu liggéey ci wàllu tool tool yi raisin yi maanaam di ko bay ñoo koy suuxatal di ko jëmbat di ko jubbante di ko watt léegi bu ñu ko wattee ba noppi dugg ci benn machine dañ koy nal doom dañ koy nal kon la jël ñu defar sàngar moom ki koy bay moom sàngar ba moo ci def moom amul leen lu ci def est-ce que loolu daga nañ ci ab jullit mu ci liggéey maanaam leer def mhm. mën naa def leneen nag bu ñu koy door a moom mënees na koo naan comme boo am saari bisaab yi leen ñuy mm-hmm. moom doo def dara mm-hmm. mais dañ koy naan te ñun garab yi ñun suñu liggéey mm-hmm. di ko wattal di ko jubbanti yu mel noonu ba mu pare ñu naan ko bu ñu ko nalee nag léegi dañ ko dugal ci bërigo yi am na yeneen produit yi ciy def nga xam ne bu yàggee day forox ba sàngara lay doon que loolu daga na ceeb bi ñu ci solo loolu moom la ni nga ko waxee lii cosaan moom lii cosaan mooy loo xam ne manees na ko jëfandikoo ci anam gu baax ah. gu dagan manees na ko jëfandikoo ci anam gu daganut itam loolu nit sañee caa liggéey ko jëf jëfandikoo ci anam gu daganut moo moo moo def lu ko warut hmm. waaye bu dee nag xam na ne lii ci cosaan manees na ca def ñaar yëpp waaye kii moom lii rek la ciy def buñ xamee raisin muy muy bay rek rek la def kenn kenn ndax lu ci nit def rek jàppale ko jàppale ko ci la sàngara moom yonente bi muy bi muy bi muy lim ñu ci yàlla rëbb moom da ko yaatal da ko yaatal da koy koy joxe euh, yooyu yëpp daf caa dugal mhm. ko da koy joxe ñëpp mhm. da leen ko koy yanu mhm. kon mooy képp ku ci jàpp rek ginnaaw moom lii rek bu fekkoon ne moom demewut noonu kuy bàyyi toole raisin la rek moom yow xamoo ne sàngar rek la ci def man naam daan ci def sàngar daan ci def leneen boobaa aayut bu fekkee xamoon ci leen tam aayut bu la wóoreen sàngara kese kese la ci def moom waroo caa liggéey yow wax liggéey boo ci liggéey rek da nga da da nga ko dimbale ci loo xam ne la yàlla bëggul mooy sàngara beneen ci magasin yi liggéey comme préparer commande yu mel xam ne léegi dañ koy jox ay léeg dañ koy jox programme mu war a dajale boisson ici léeg-léeg dañ ci boole wala bitéeli sàngara yi nga xam ne force mu programme ko par commande moom muy laaj xam loolu mu koy laal noonu boobu moom signé ko ci contrat bi sax waaye dañ ko ci jaxase ci ko moom ne ko man du ma naan sàngara waaye dañuy indi léeg-léeg fukki jees ak boisson fukki jees yi sàngara jaxase wu ci biir nga xam ne mënta ñàkk moom force comme que monte nga moom da nga ko da nga ko pousse da nga ko paquet di envoyé muy laaj bakk loolu waaw kooku de moom bu fekkee def na loolu moom loolu loolu mooy mooy mooy mooy lu ñu bari dul def tam jaadu mooy booy seq ak nit liggéey te liggéey nga séentu ci ne mën na càmm sa diine bañ nga teel koo xamante man nag ñoom bokk li def bi daanaka na ko wax mu ànd jaag moom sañ na saabu lu mel noonu dikkee mu lànk mu lànk waaw ah, xas na ko wax moom ba noppi sañ na bu àgsee mu lànk ne ko li ak li ñu diggante woon sañ na ko bu doon ku ko waxut nag kooka moom lañ koy digal ak comme ak sax ki ko waxoon te te gars yi bëgg koo bëgg koo jaay doole it la gën moom mu wuti beneen liggéey jëm ko wut jëm wuti beneen liggéey diggante bi bu koy wute nag Euh, nit dañuy ñaan yàlla jéggalaale ko diggante bi nga xam ne koy wut ngir dina liggéey waaye moom li jaadu mooy loolu mu def te njëlbeen nga mu xamante ne man kat nangam moom bokku dafa doon loo xam ma ko moom bokk sama liggéey fii buñ ko ko nangulee bu demee ba lu mel noonu ñoom sëñ naa taxaw lànk xëy na boobaa nag bu fekkee xëy na bind mooy gën a wóor man naa buñ ko bindul ci ay wax rek la bu lànkoon na mën nañ koo andil ay jafe-jafe waaye buñ ko ko andilee itam na jéem a beneen liggéey ki nga xam ne woo ko ko tam ba xëy gis ko na jéem a wut beneen liggéey te nit bu fekkee sàmm diineem moo tax mu bëgg a génn ci li nekk yàlla mën a ko caa liggéey boo mën caa génn am am liggéey boo xam ne diineem ji bañ mën na caa bañ a am te mën naa mën na caa gën a jariñoo sax ci njëriñu àdduna la ko jariñoo ci njëkk la waaw na naa am naa benn laaj indi ci ci benn aaya ci alquran karim ci yaakaar naa ci mujj gi fi mhm. suñu borom di wax auzu billahi min rajim man yadu ma allahi ilahan la burhana lahu bi fa innama la yuflihul mhm. lahu bi maam waxin woowu mel ne mel ne daa daa a nekk daal loolu daal ko mën a alxuraan danay waxe noonu léeg-léeg mooy loolu melo la waaye day melo woo xam ne woowu rek woowu rek day taxoog day taxoog lañ ko melal mënut mhm. a tàggoog moom mhm. mooy mooy keneen kuy jaamu leneen rek munu cee am burhaan mhm. kon ci ci piri mi ci dégg mi melo la waaye melo yi mënut a tàqalikoo mënut a tàqalikoo ak moom mu ngi noonu loolu ñëw na bari na ci alxuraan euh, waxee nii mel noonu euh, kon loolu lay firi mooy keneen ku muy jaamu kooka moom du ca am du ca am burhaan mënu ca am burhaan moom loolu dana dikk ci alxuraan lu bare bare moo tax leer dañ naan melo la woo melo la waaye du melo wu wu doon tënk tënk mooy loo xam loo xam mën naa am naa bañ am waaye melo la wu tax ko mu tax ko ak njëriñ njëriñ ñuy wax leneen euh, li ma laaj mooy ci wàllu wirdul maxfuus xëy na sax euh, xanaa fàttali xëy na fi ko sëñ bi tegoon mhm. waaye euh, damay laaj fu mel ne réew yi nga xam ne waxuma la julli mbooloo sax waaye julli fi julli fi ci waxtu sax jafe na xaw naa jafe li boo nekkee ci ci liggéey jàmm mhm. julli fi ci waxtu sax jafe na lool lool mhm. budul sax wirdul maaxuus sax moom maanaam julli ci moom daa daa war mm-hmm. julli ci ci ci ci waxtoom daa war mm-hmm. waaye nga xam ne mënoo ko ak euh, te te te yooyu mel ne bokk ci charte wird bi euh, ndax da koy jël lekk nga def ni nga man wala wala wala daal nga bàyyi ba gën a jekkandikoo gi mel noonu daal waaw ah. ah, ma charte wird bi wala jëmmi wird bi joppam jëmmi wird bi maanaam jëmmi wird moo jotee maanaam jafe nga xam ne dañ naan la ngay jiw a julli ci mbooloo kii yu mel noonu. waaw loolu mooy sart yi. sart yi waaw sart moom loo ci man rek. Hmm. loo ci man rek sart moom bu ñu ko mooy naan lu baax. xam nga jëm moom dafa mel ne wàccuwaayam ci yeneen yoon yi bokkut ak wàccuwaay bi même ci yoonu murid. li nga xamante ne yoon yi ci des daanaka dañ koo tënk rek ci wérdu moom ba daanaka ku jëfandikoo wérdu rek bokkut ci yoon wa murit bi moom daa mel ni demut noonu wérdu luñ ci dénkaan la santaan la lu baax la waaye nag wékkuñ ci wékkuñ ci ak murit ma tax na kon nit ki bu ko mënee def mën a sàmmonteeg sart yëpp baax na lu mu jëmoon ci tam muy def lu mu jëmoon rek mu di ko def tey sàmmonteeg la man ci sart ndax bokkut ak wàccuwaay daal dafa mel ne ci yoonu mooy hmm. wàccuwaay bu ñu ci am bokkut ak moom yoon ci hmm. mooy mooy ba ku ku jëfan ku defut wér mu ko war a rek day mel ne bokkatul ca yoon bu dee murid bi nag kon lu baax la ci luñ santaanal luñ féertal nit waaye ku ko man boole ci sarte ba mu mat moo gën waaye ku ko matal saa kita yëkk itam nag mu def jëlam te man rek waaw te mën bu rendi moom moom li li li tax ñu jàppee mbir ne dañ ko rendi mooy lañ dagg si biir yooyu ba deret génn moo xam paaka lañ ko defee moo xam leen lañ ko defee bu defee noonu jàpp ne lu ñu rendi la bu dee lu dee te demewut noonu dañ ko jàppe medd dañ ko jàppe medd léegi nag euh, ni ñu ko waxee rek lislaam moom dana indi àtte waaye dana dana bàyyi xel itam jamono daal di àddina li li li ak nit ki man manam li man ak li mënul dina ko bàyyi xel koo xam ne kon man naa man naa fam nekk loola am na fa te xam na ne am na fa mais jëfandikoo loola bu fekkee ne dafa amut wala daal jafe na ko wala mënu ko lu mën noonu mu jàppe boppam ku nekk ci ku ñàkk fexe ku ñàkk fexe waaye ren di moom mooy loo xam dañoo dagg ñaari si biir yi ba dara ci génn bu demewut noonu rek ray lay firi boo dee ñeenti rek lañ ko jàpp ci lislaam moom alxuraan ñu tudd yu mel noonu ñi nga xam dañ leen dóor dara lu diis wala am ñu daanu wala ñu mbëkk leen wala xeet yooyu yëpp mooy yëpp nga xam ne deret génnul métti métti métti métti la waaye nag na fekk itam muy lu mën a nekk na fekk lu mën a nekk moom yàlla da koy jéggal da koy jéggal ñu koy jégal ab julit yonte bi wax wax na wax na lu mel noonu wax na ne am na ñooñ yàlla du leen bindal bàkkaar ci ci ci jëf yuñ jëf bokk na ca ci nga xam ne la mu def dañ ko càggaan dañ ko càggaan mooy sañ bañ la ko def koo xam ne sañ bañ la ko def kooku yàlla du ko ci bindal bàkkaar hmm. kon mooy fekkoon ne fi mu nekk dafa munta am te ko munta am kooka la mu ngi fii yàlla mën na caa bindal benn benn bindal lu man mm-hmm. mu moytu lu man bu mm-hmm. mm-hmm. xamoon ni mun taam fi nekk wala mu fi a moytu ci lekk yàpp sax mën a ko moytu di leneen bu dem koo ñàkk lekk itam nag mu jàppe boppam ku ku ñàkk pexe rek nga xam ne ku ñàkk pexe daañ ko may yàlla lim foofu ba tey rek yi maraamal ci lekk foofu la tudde sax liñ nekk ñàkk pexe foofu mu koy tudde noonu yooyu ay mel yooyu yëpp lay wax ne ku def ku ku ku xiif nag ba nar a ba kanam xaj ca te amut leneen mën na ko jëfandikoo waaw lu mel noonu waaw am naa benn laaj ci ab tukkikat hmm. tukkikat hmm. nga xam ne da da mel ni ko mu wàññi julli hmm. euh, Euh, def naa dañuy wax sax li gën mooy fekkee ne mën naa jiite moom ndax mën a wàññi hmm. ndax moom nga am julli mbooloo mën a wàññiwaale ndax hmm. fekkee ne fa jëm moom xam kenn kenn du ko nangoo jiital ndax xëy na na hmm. imaam wala ndax boobaa lu muy jiital julli mbooloo gi lay jiital wala julli moom kese wàññi gi ñaari yooyu ñaari daal ban la waaw julli mbooloo gi nag mooy gën jiital julli mbooloo gi mooy gën ànd ak mbooloo mi matal mooy gën beru ngir wàññi xam mbooloo daa may jëriñ yu bari ku fekkee mbooloo te àndu ci day mën a jur leneen diggante ma ngi leen ñu koy xoolee ñaaw njort ak yu mel noonu moo tax bolong moom lépp luy luy luy andi mbooloo rek moo gën ndax lu andi kon ak matal gën mu ak ngir ngir bëgg وإياكم وأتابعكم المسلم أسلم وسلم ñu ñëw mën na ko sax waaye loolu wax dëgg yàlla du dëgërut daal. Mm-hmm. dëgërut bu dee bu dee jaaxle na moom kenn waxu loolu. kenn waxu ci loolu du borom mm-hmm. xam moom. dana ko toppaan xam mën na ko wax noonu bi waaye mm-hmm. koy waxee noonu. ñu koy ndax xam nga alquran. du ay wax kese rek. waaye alquran alquran da koy firi sunna da koy firi. te yonente bi daa firi loolu. da ko firi. sunna ak yonte bi dana firi dana firi alquran ay wax dana ko firi jëf dana ko firi jëf te dañoo gis ñu dugg ci lislaam amoon bu ëpp ñeenti soxna mu ne leen na ci ci ci firi firi ne lay dund bi rek day joxe maanaam nangam nangam ñaar ñaar ñett ñett ñett ñett waaye tëggiin wi dana firi loolu waaye dana firi ñaar kese rek masna dana firi ñaar ñaar waaye dana firi ñaar rek sulaasa dana firi ñett ñett waaye dana firi foofu nag euh, noonu la dikkee kon ñaar rek wala ñett rek wala ñeent rek bu ko firee neneen euh, am na ci ñun xëy na njuumte lay doon waaw mën na ci am ñoo xam ne dañoo seen bànneex mën a bëgg a yoonal ah. bëgg yoonal waaye moom mooy yonte firi na ko ci jëf yonte ko xasee firi jëf nag kenn du kenn du ko mën a firi leneen bu dee chiites yi moom dañoo wuute ci ay moo tax mm. alxuraan ñoo ko bokk mm. waaye xadis bokkuñ ko mm. ndax xadis ñi sukkandiku ñun yu ci bari ñoom duñ ca sukkandiku ndax waaye yi ñu natt xadis ñoom bokkut ak ñu koy natt moo tax ñoom suñ diggante du neex a yomb ñu dëppoo ci yenn yi du yombe noonu moom ñoom wut ak ñoom du du du yéeme daal ndax cëslaay yi ñu wute ci wàllu sunna alxuraan noo ko bokk moom waaye alxuraan moom dañ koy firi dañ koy firi yonent bi wala saxaaba yi sukkandiku seen dégg laa ko yëpp bu fekkee nag am nañ seen cëslaay bopp ñoom loolu moo tax ba ni ñu firee alxuraan day wute ñu ko firee noonu donte jëm jëm jëm jëm alxuraan bi la waaye firi ma da cee wute bu dee biir ahlu sunna nag moom ñoom ñëpp noonu ñii lañ ko firee ñaar rek ma laajaale foofu rek dañu naan yow ñu ñu ngi jël keneen ñu def ñu naan tegoo bant loolu itam day xam nga am na ñoo xam danañ sukkandiku ci yàlla jox naa wala na rek mos ci daala zawju makaana zawju foofu firee ko ci kaw gi rek bu leen bëggee daanaka daal bu leen bëggee xocc kenn jël kenn loolu yàlla jublu ko jubluwul loolu jubluwul wane ne loolu sañees na ko nit sañ na saa bu ko neexee daal moo ci seen soxna takk seen soxna boo amee ñeent saa bu ko neexee moo ci kenn takk kenn déedéet ak sëy moom bu xasee am bu xasee am sabab bu ko jar rek moo war a tax ñu ko bu ko jar nag du dellu ci bànneexu kenn ci ñoom ñaar rek du ci bànneexu kenn kon ku am ñeenti soxna moom sañu doon xool keneen ba di ko bëgg sañu ko bëgg keneen moom sañu te bëgg moom ba naan day day bàyyi kenn jël kenn li ma bu yàlla dogaloon nag mu am sabab bu tax mm-hmm. mu bëgg cee war cee bëgg cee kenn waaw moo xam kenn la yor moo bu sababu moom mm-hmm. mu tàggoo ak moom nag mm-hmm. kon aaya jooju ba tey soriwut ak ñu doon wax léegi ci laaburaana la ko bii mooy dafa am waxin yoo xam ne day ñëw ci alquran alquran du jublu ne ci anam gi ya àtte bi wàcc waaye day day wonewaale bi àtte bi wàcc li xewoon mhm. li xewoon mhm. mooy bi àtte bi wàcc ki ko defoon moom loolu la defoon mhm. mu mu waxee ko noonu rek waaye jubluwut ne jubluwut ne ku kum neex mu def ko jubluwut ne kum neex mu def ko yooyu am na ci alxuraan yu mel noonu nga xam day mel ne day mel ne ab tënk la te fekk du ab tënk su mel ne bi muy wax ci ci ci ci idda fi naan li ngeen sant tuum man ko waxee fi ñuy wax a ci ci ci idda yi li ngeen sant tuum ci xam nga baat bi dayoon bu ngeen bu ngeen dee sikki sàkk mel na bu ngeen sikkiwul sàkk kon beneen àtte leer te jubluwul loolu waaye bi muy wàcc daa fekk ñuy sikki sàkk rek àtte bi mu ne yéen day mel na yéen ngi sikki sàkk àtte bi nag mooy lii waaye firiwul ne bu ngeen dee sikki sàkk li muy àtte bu ngeen sikki sàkk déedéet te itam bi muy wàcc mooy lu mel kan noonu daa amoon rek waaye firgu ya, ya, gitu. di da koo da koo nangu wala da koo yàgg dagana wala da koo yoonal ndax sëy moom bu xasee am sabab bu ko jar rek moo war a tax kenn ci ñaar ñi sabab lu ngir mu dañ moo xam góor gi la moo xam jigéen bi la yonente bi waxoon na ci jigéen ne jigéen di ñaan baat ci lu ko jarut du fóon def ko àjjana man dama naan ci jigéen la ko wax waaye gisuma lu ko wutaleeg góor dëgg la loolu laa mën a foogee it ne góor bu ko def itam moo itam du contre yoon dem mm. te góor a ci raw ndax bu dee jigéen day ñaan mm-hmm. góor nag ñaanut <laughs> moom day wàcc rek mm-hmm. kooku moo joon kon moo ci sax jigéen bu ñaanee mën nañ koo bañ a may te ginnaaw ñaan gi rek mm-hmm. ci lu ko jërul kon perte àjjana parce que nga xam ne ñaanul moom day jëfandikoo sañ-sañam rek ci lu ko jërul moom itam ragal naan du kon perte àjjana moom itam waaw mm. am na ñoo ci amin amin daf mel lu la ci xëy na bi nekkul arab mm-hmm. wax ne xëy na éthiopie mm-hmm. ah, ak cosaanam cosaanam cosaanam mm-hmm. loolu moom alxuraan bari na ci am na téere yoo xam ne dañuy dañ ci wone baat yi nga xam ne seen cosaan ci weneen làkk la weneen làkk lañ cosaanoo loolu waaye teewul arab jël na ko ba dugal ko ci arab bi bi bi bi lislaam di laata ñëw bi jël na ko ba mu bokk ci arab li ma ma jëlaat yëpp rek dañuy àbbante moom waaye ku ci àbb itam dana ko dana ko dëppale ak ak waxiinam ba mujj mu bokk ci kon dañ naan cosaanam la ñuy mën a wax waaye duñ ne moom la fi mu ne nii dañ naan cosaanam nangam la waaye fii ne moom arab la waaw moo tax alquran li ci lépp arab la donte am na ci yooyu cosaanam du woon arab waaye bi lislaam bi laata wàcc fekk na ma doon arab arab jël nañ ko ba arabeel ko loolu moom ni mu am ci làkk yëpp rek noonu la ci amoon euh, foofu li may laaj rek am ñaari laaj euh, laaj bi mooy ñi nga xam ne dañoo bokk ci ahlu sunna nga mhm. xam ne mhm. lañ war a jëflanteeg chian yi xam nañ ne jullit lañ waaye ndax daa am yoo xam ne dañ leen koy tere nga jëflanteeg ak ñoom wala yu mel noonu daal Euh, xaw ma ko de jullit moom jullit yëpp moom xam nga jullit sax mooy bislaam moom yow sax jullit waaye bi nekk yëpp sakkantuma nit ñëpp sakkantuma nag mooy lu lu mu gën a jege rek day gën a dëgër waaye ñu xas doon nit rek jëfante bu rafet moo war dox seen diggante nangoonte moo war dox seen diggante xajoonte moo war dox seen diggante ñu xas doon ay nit rek ñenn ñuy wax ne mu yàlla sax ak ñaan gëm nañ yàlla waaye gëmuñ diine ñooñu ñëpp sax day ñëpp jëfante ak ñoom ñoom àddina jàppalante ak ñoom ci dañu war a ñoom ñu ci a jegeel ci wàllu pas-pas loolu day a dëgër rek ñi nga xam ne ñoom nee nañ gëm nañ yàlla suñ diggante ak ñoom mooy gën a dëgër suñ diggante ak ñeneen gëmuñ yàlla ñooñu tam war nañu jëfante ñoom ñu ne gëm nañ yàlla gëm nañ diine suñ diggante ñoom mooy gën a dëgër ñu ca kaw ñi nga xam ne diina jiim ji jiñ ne moom lañ gëm am na cosaan bi jógewoon ci yàlla ba tey mu gën a dëgërat moo tax alxuraan jagleel ahlul kitaab xam ne suñ digganteek ñoom euh, alxuraan wane na ne ahlul kitaab ak nun nu gën a jege ñeneen ñi nga xam ne gëm nañ yàlla gëm nañ diine waaye seen diine cosaanam jógewutoon ci yàlla noonu lay demee ba bu ñu jógee ci jullit ñi itam ñëpp ñu nekk ci lislaam moom suñ digganteek ñoom mooy gën a dëgër ñenn ci yeneen diine yi noonu rek lay demee di gën a dëgër waaye du du du du fànk moom ah, kon ñi nekk jullit ñëpp li nu war suñ diggante ñun jullit ñi mooy jàppoo gi nu yàlla digal jàppoo gi nu digal li nu dëppoo ñu ci dimbalante li ñu wuute ñu ci xajoonte ak dogalante ngànt loolu moom moo war ci diggante jullit ñépp ñi ci bokk ngir ak ñi ci bokkul ngir xëy na lu ngeen gën di bokk nag day gën a dëgëral seen diggante waaye du tax mu mu mu fànq sa diggante keneen ki nga xam ne am na lu ngeen wute wute gi du teye ñu ko mag ñi daan waxee rek loolu lañ daan wax dañ naan liñ dëppoo nañ ci dimbalante liñ wuute nañ ci dogalante ngànt te xajoonte itam ku nekk xajoo morom ja te dogalante ngànt xëy na bu yi moom ëppal gi am ci ñenn ci ñoom daal mooy euh, ŋàññ gi ñuy ŋàññ saxaaba yi loolu du lu rafet lu jaar du lu baax waaye teewul a nekkee jullit teewul a nekkee jullit ŋàññ saxaaba baaxut waaye teewut a nekk jullit teewut a nekk jullit euh, loolu moom war nañoo mën a waxtaan suñu biir ñoom it bañ bàyyi loolu ndax du amul leen njëriñ <laughs> ñoom fas nañ fi jaar jàll nañ yàlla li mu wax ne ñoom jàll nañ lañ def seen mbir yéen ñi fi nekk li ngeen def seen mbir nañ li suñu mbir ñi fi nekk yoon ci Abubakar Omar ak ñoo lañ seen kii nañ ñoom seen mbir jàll na seen diggante yàlla la lañ defoon seen diggante yàlla la nun ñu fi des dañu rafetal suñu diggante noonu buñ xuloo xuloo buñ xuloo ñoo xam ne jóge nañ ci fi yàgg yàgg yàgg mel nañ dañoo bëgg sax ci leen xulool loolu ñoom siyaay war a yeewu ci loolu nag xam ne amul leen njariñ te day day day day seen diggante ñu ci des jullit ñi rek ndax nag neexut nit di ñàkkee war ma sa kilifa ndax saaba yi suñu kilifa lan rawatina nga xam ne suñu saaba yëpp lañ dafay kilifa rafetul nag te neexu ci tam nag am koo xam ne fu mu toll day day day ñàkkee war ma say kilifa loolu daal mu coxoon ba dindi boom daa ñu dana jaxasoo bi dana gën a yomb fu mu naan dana gën a neex waaye nag buñ ko dee def it teewul leen nag ay jullit am na lu ñu war a jëf jàppalante ak ñoom am na lu ñu war a jëflante ak ñoom maa hmm. ngi bëgg a laaj foofu mooy ñu dégg lu bari borom xam-xam yi di wax ne gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne Abubakar yi moo moo gën moo gën ci ci ci jullit ñi hmm. ndax loolu maanaam lu am ci lay la wala keneen ndax keneen sañ naa wax ni daal man ni kii ne Omar wala ne Ali man jàpp naa ne moo gën ndax hmm. xëy na yonent bi am mu ko tegoon wala loolu daal euh, mën naa jàpp ne lu wuuteeg ne Abubakar bi moo gën a gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa waaw loolu de moom ci mbir yi xam nga ci xam-xam lañ ko teg hmm. natuwaay xam-xam daal lañ ko teg natuwaay xam na ci am moom hmm. mën nañoo jàpp dara ba noppi keneen jàpp leneen waaye ñoom ay mandarga daal yu war lañ gis buñ ko gisee ñu ñu sukkandiku ba jàpp loolu ba jàpp loolu koo xam ne xëy na tislaa yooyu ñu sukkandiku ñoom mën naa jàpp ne doyut mën naa mën naa jàpp leneen waaye ñu gën a bari ci xam sunu moom noonu lañ ko jàppee ci ci ci digganteem ak yonte bi seen jaar-jaar bokk na ci li yàlla wax naan weeta jan ويتجنب الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الأتقى الأتقى جوجو ki gën a ragal yàlla la ki dañ firi ki gën a ragal yàlla daw mm-hmm. bakk la doon wax mm-hmm. am na ñoo xam foofu dañ sukkandiku ne kon mooy ki gën a ragal yàlla ginnaaw yonente bi yonente bi moom dafa bokk mm-hmm. kon ginnaaw yonente bi moom ki gën a ragal yàlla mooy moom te gën a ragal yàlla mooy ki gën inna akramakum inda Allahi atqaakum te yàlla neen te yàlla foofu neen mooy al atqaa loolu aw déggin la ak yeneen yuñ ci boole ngir def ñetti seen jaar-jaar ak yu mel noonu jiital gam ko jiital ak ak comme ñu gàddaay ànd ak moom am na cër yu bari yoo xam daal am na ko ci lislaam ñu sukkandiku ci ko jàpp ne ko jàpp ne ginnaaw moo gën ci jullit ñi ci ci ci waaye yooyu lu mën ci xew mbirum xam-xam la rek mbirum xam-xam nag boo te mën na ci ci benn benn café bi nag café bu cher la xëy na wante café bi dafa mel lu mel ni muus daal lu mel ni muus moo koy moo koy lekk ko lekkee da koy génne ko moo koy neexal daal ci gerte maanaam te maa xam tey itam loolu ba xam bu fi qualifié ci lu daga na la lekk ay kiyam ay raj ay neexalam wala ay baaxalam ay lu génn ci moom ban kii lañ ci a ko daal ndax maa xam ndax est que daga na wala déet exemple am muusal xëy na te li koy dem mu doon ci ci ci desit muus la jóge dem dem dem moo nekk muus la jóge waaw moom ci lu mel ni muus ko liggéeyee ci lañ liggéeyee café bi moom ku seet doon tam xam nga nag noonu nga ko waxee bu dee bu dee bu dee yi dagan na lekk seen dema laab na laab laab na bu laabee moom mooy dagan naa lekk mooy ku ko ku ko ku ko bëgg ku ko bëgg mën na ko mën na ko lekk muus nag eh, ñëpp dëppoo woon ci ne daganut ñëpp dëppoo woon ci ne daganut hmm, bu boobaa kon ñu jàpp ne dagan na ay dem àllam laab na te bu laabee mooy ku ko bëggoon a jëfandikoo mën na ko jëfandikoo eh, kon loolu loolu daal ma ci bu jàpp daganut nag du laab fii fi ab laabu duñ ko dagana jëfale ko ba tey duñ fekk wuute ko foofu lay dellu rek ci ndax muus dagan naa lekk wala dagan du lekk ñëpp dëppoo woon ci ne daganul kon ñu am nañ jàpp ne dagan na ñoo ne kon mën naa lay jóge ci moom day daan lu laab te bu nekkee laab day nekk day doon luñ yi nga xam a waaw ak digal dégg moom xam am ba nekk wala moom lu mel ne ganaar xam nga ganaar léeg-léeg mu tuddee ñu tuddee yi wala ñu maanaam na lañ ci digal ñu wax ko jëf ba baax xam nga ginaar moom naka jëkk mosuñu werante ci ak daganam donte xam nañ ne dana dana jëfandikoo dana ko solo waaye am na yoo xam ne dañ naan bu dee li muy ëpp ci li muy jëfandikoo sobe la moom nga xam daanaka dundam yëpp moom la loolu moo dul moo dul moo dul dagan waaye bu dee da koy jëfandikoo waaye jëfandikoo leneen tam nag loolu du ko du ko yàqal dara léegi daal léeg-léeg su muy su muy julli wala ma mu julli ba noppi wala ma wala su muy jàngal Alxuraan daal hmm. wala ma wala ma julli ba noppi daal ni tey daal julli naa def naa sama warteef waaye ya. daal teewluwuma julli gi daal teewluwuma julli gi wala jàng alxuraan gi ma doon jàng daal teewluwuma ya. ko wax dëgg yàlla maam daal nit nan la mën a ci boppam ba tàmm teewlu teewlu li def xam nga loolu nag moom ab xeex lay doon rek lay rek koy ba ca da dal ndeysaan nit daa ñëw jàpp ne moom alko na ndax daal bu buntu julli si yonent bi ne ko noonu la def noonu la ñuy def leen jéem rek saa bu saxa demee jëm ko delloo si rek saa bu saxa demee jëm ko delloo si rek amul kenn ku wees loolu ñëpp loolu lañ loolu foofu lañ nekk euh, saa bu saxa demee nga jëm ko delloo si rek ki nga xam ne moom li ñu koy metti rek loolu ab ab kii la ab jéego la boobu tam ñu koy def te duñ ko faale sax doon dara ci ñoom waaye ki koy yëg ba mu koy metti rek moom lu dem a jaar al arab al arab de dulu dulu dulu dulu gudd de al arab xëy ñenn daa am ñenn ñu ko jàppe dëkkuwaay ci àllaaxira dëkkuwaay bu nit di sax ba am na dégg nañ ñoo ne sax laaraab sax baax na lu ñu koy wax naan ñun daal buñ dee foofu laaraab sax baax na waaye laaraab du fu ñuy dëkk aaraab du dëkkuwaay bu ñuy dëkk bañ naan baax na bu dëkk aaraab li wala fi wax siiñ siiñ lay siiñu sàkket wala siiñu loolu lay firi léegi sàkket wala miir yi dox diggante àjjana ak sawara miir yooyu seen signe mooy aaraaf yàlla mooy namu am ñu mu yéegloo ay jamono ngir am lu mu leen di woon dana am ñu mu jëlee ci àjjana yéegloo leen fa ngir am lu mu leen di woon ci sawara dana am ci waa sawara ñu am lu leen di won ci àjjana waaye nag bu loola jeexee rek ñu dellu fañ dëkk foofu moom ñaari ñaari dëkkuwaay rek ñoo fa am moo tax képp ku ñu naan arab ngay dëkk moom loolu lay wax la rek waaye kenn du dëkk hmm. daa am ñu ko yàlla bi yéegloo ngir am lu mu leen woon hmm. bokk na ci hmm. ñu ngi koy nettali ci alxuraan ci suuratu Safa dañ ci nettali dañ ci nettali kenn koo xam ne dañ koo séentuloo mu séentu seen kon kooku ci waa àjjana la bokk mu séentu mu séen ci biir sawara waa ju ko daan tontoo ci àddina di ko sabab ab seer nga nangam nangam yi ngay kii bi dara nangam nangam yu mel noonu hmm. bi ko yàlla dugalee sawara dugal ko àjjana moom bëgg koo woon hmm. sa waaja hmm. ba noppi woon waaj itam ki mu doon sabota boobaam moom mi nekk àjjana ñu ko ki ko doon saboot ni mu nekk sawara dana gën a yëg moom xéewal gi mu nekk kee doon saboote buñ ko nekk ki mu doon saboote mu nekk àjjana dana gën ma déglu. xanaa tàllaay in ko tilatul bi. nga noonu waaw yu mel noonu la. Mhm. kon keneen sawara daañ ko yëgloo. Mhm. ngir wan ko ne àjjana ngir mu gën a ma déglu. Mhm. ndax lu mu seen diggante yu mel noonu. ku ne àjjana daañ ko yëgloo ngir mu seen. tam doon tam doon saboot. waxtaan dox seen diggante léeg-léeg. Euh, yu mel noonu loolu loolu ci yàlla jublu ab diir rek. waaye bu loolu sottee mu jeex. ku nekk dellu fa mu dëkk. moo tax ñuy tudd naara bëgg wax naa am nañu fay dëkk te kenn kenn du fa dëkk moom kenn du fa dëkk ñu ngi koy yéegloo ndax siiñ am siiñ kenn du fa dëkk dañ leen koy yéegloo ngir wan leen bu ñu leen wanee dañ leen di wan rek waa ñu wàcc dañ ñuy dëkk nag léegi nag euh, xëy na ñu ñu jàllaale ci ndax am na sëñ bu mag bi téeréem boo xam ne am na ñu ne laanaat fa ñu nekk Mawlana Sudóor waaye Mawlana Sudóor li ci am mooy téere bu sëñ bu mag bi ma a bind la waaye fi mu ne nii la ca nekk kenn wër ta wax ne mooy li suñu mën di jàpp dëgg la man da ko folle eh, dëgg la Mawlana Sudóor mu nawiru moo ko folle te Mauritanie dëgg mu nawiru Sudóor mi ko folle nag loolu newul dëgg la loolu mooy wane ne moo mujj ko moo mujj fanweer fanweer dox na sa diggante fanweeri at rek ci la yem moo tax sa ndigal mu lay na sudur ba ko sëñ bi man ci daara ja boobu jàppoon na loolu ndax ñu ko doon wax ci yooyu mu jàppoon ko bind ko waaw ba mu demee ba xamal boppam nag li mm-hmm. ñu kuñ koy xolli di bindaat mu lay na sudur ku du jël dara jëm ci loolu kon mu lay na sudur moom mm-hmm. kenn waru koo jàpp te Euh, gis gis gisinu sëñ bi waaw ku koy xam ne daa war a xam na lu mu mas a bind la rek mm-hmm. waaye kenn du jàpp kenn du wax ne lu mu jàpp la lu mu jàpp la ci mujj masha Allah naam man laa jël laaj mujj rek danaa amoon ci gën a yàlla Alxuraan ma mm-hmm. si suur suurat Tuur أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل من بما كسبت أيديهم am loolu ni ñu koy déggee daal ni ñu koy déggee ndax ni ñu koy déggee ndax ci gàttal la ni ñu koy déggee moom lépp ñëw na ci ñëw na ci ñëw na ci laaya ji mooy nañ ñëpp ñëpp ci mbaax lañ nekk bàyyi yeeg maam yi ci mbaax lañ nekkoon sët yeeg doom yi itam ci mbaax lañ nekk ñoom it waaye nag mbaax googu ñu nekk bu leen ci seeni maam manee itam lañ leen ca mën yàlla daana ko mot waaye nag daa fekk ñu nekk nekkoon ci mbaax doom yeeg sëriñ nekk ca leneen dugguñ wa tabaatu lañ nekkoon ca lañ nekk ñoom it yàlla daa ko mottali yàlla moom yàlla moom noonu day doxaleeg ñëpp ñu gëneelam ngëneelam boo nekkee ci lim bëgg ci ngëneelam nag moo lay jàllale foo xam ne sa jëf àggale wul du la fa àggale moom la fa àggale mm-hmm. waaye de fekk nag nga ne ci yoon wi nga ne ci yoon wi la la ca des mu àggale la mm-hmm. loolu la loolu ko defee nag li mu ko waxee mooy mm-hmm. euh, loolu mu mottilil sët yi taxut mu wàññi dara ci ci ci maam yeeg bàyyi sen seen seen seen jëf ngeneen bu la waaye du caagoon daan nangoo ca ñeent di leen ko mos li mm-hmm. mm-hmm. jërëjëf jërëjëf macha allah jërëjëf sant